Euh, mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp maa ngi ziar ñëpp di jaajëfal Sëriñ Ibrahima Jim Thiam ci silsila bi mu nekk ci wàllu tajdid muy lu am solo ndax tajdid moom mënta génn benn ci ñaar yi te <clears throat> baat bi dafa wuyu boppam waaye nag ñun ci géew ak tasawuf biñ nekk dafa dañoo war a Eh, samp benn jàngat jàngat bi ñu war a samp mooy tajdiidul mafahim maanaam mafhum yiñ am dégg-dégg yi nga xam ne am nañ ko ci yenn ci eh, mustalahaat yi nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo ñu taxawaat ci yeesal <coughs> dégg-dégg bi ndax loolu daf ñuy dimbali Euh, bu fekkee dañoo am sëriñ bu toll ni cheikh tijaani radiallahu anhu mu wax ni bi sayri zamanika sir doxal sa doxinu jamono te jamono nag xam ngeen ni ci njëlbeen ba fii ñu toll mus fee jug fam nekkoon rek la ne xëy na ay tasarrufaat ñooy am ci ay <coughs> jëmm <coughs> jëmm yi nekk fi ba mu yàgg ñu jógee fi yeneen ñëw ay xew-xew nekk fi ba mu yàgg ñu jógee fi yeneen xew-xew ñëw mooy li ñu tuddee al ahdaas taarixiya loolu lépp nag daf fi fekk jamono tey tamit dafay dem bàyyi fi jamono ndax jamono li ko ëmb mooy almalawaan mooy guddeeg bëccëg guddeeg bëccëg nag ci cosaan la kon itamit jamono lu cosaanu la dafa bokk ci yi nga xam ne yu cosaanu la bokk ci yi nga xam ne ñooy te jëlliyaat yi yàlla njëkk a feeñal ba mu feeñalee rek fom ci la feeñal jamono moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laajee nekko moo tax yonantu bi sallallahu alayhi wa bañ ko laaje ne ko ay na kaana rabbuna qabla an yaxluqa al xalq fan la yàlla nekkoon lu jiitu muy bind mbindee fii dafa ne kaana fi amaain ma fawqaha hawa wala taxtaha hawa nekkoon na ci jëmmi ngumba goo xam ne ngelaw féetew ko kaw ngelaw féetew ko suuf ngelaw féetewu ko kaw mooy asamaan amut ngelaw féetewu ko suuf mooy suuf amut kon jamono du am mbiram yàlla jamono amut ci waaye nag ba mbindee feeñee rek ci la jamono xew <coughs> kon dafa bokk ci yi ñuy tuddee al xawaadis eh, eh, jamono nag <coughs> yàlla tërale ko benn tëralin saa su nekk rek nu nu mu lëj lëj lëj wala nu mbir mi mënta yaatu yaatu yaatu yaatu dina am kenn koo xam ne moom mooy féete kaw ñëpp mu mel ni rek kooku mooy ki nga xam ne moy représenté yàlla ci mbindee famille kooku nag dinañ ko wooyee bépp tur dinañ ko wooye bépp melo dinañ ko jëmmal itamit ci bépp jëmm ndax tur yëpp ay turam lañ melo yëpp ay meloom lañ jëmm yépp ay jëmmam lañ ndax ki mu wuutu <clears throat> ndax amul benn tur booy tudd mu génn ci turu yàlla yi amul benn melo booy tudd mu génn ci melo yàlla yi amul benn jëmm yi tamit booy tudd mu génn ci jëm yàlla ji yàlla nag bam xamee loolu ci la ne bu ngeen di dóor sax bu leen dóor nit ci xar kanamam ndax inna allaha xalaqa aadama ala suratihi bu ngeen di dóor bu ngeen bu leen di dóor ci xar kanam ndax yàlla dafa bind aadama ci suura kooku nag nga xam ne moo gën a mat ci suura boobu nga xam ne yàlla mu ko bindee aadama waaye jëlee ko ci boppam kooku day am ci jamono ju ne loolu yaakaar naa ni ñaari nit duñ ci werante ba yàlla sàkkee doomu aadama yi dafa jël seen baay aadama mu doon xalifa loolu nag di royaatal génération par génération tabaqa par tabaqa wala nga ne jiil jiil baade jiil jamono bu nekk bu njëkk yàlla ay yonentam la daan yónni ñu doon aji matee seen jamono <coughs> bañ demee nag ba nubuwatu tashriya jeex ci waxu yonantu sallallahu alayhi wa ak waxu borom tabaraka wa taala muy ba muy wax ni maa kaana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa xaatama nabiin aaya jàngale na ni nubuwatu tashri jeex na <coughs> maa ngi jégalu nag damay sooge jàngale nañ nubuwatu tashriya jeex na waaye nag jëmmi nubuwatu daf fi des ñu sol ko ci jëmmi wilaayatu bu ko defee nag wilaaya dafay ëmb nubuwa duñ gisati nubuwatu ñoom ñaan ñëpp nag ñu boole leen ëmb ci jëmmi xilaafa bu ko defee duñ gisati nubuwatu duñ gisati wilaayatu xilaafatu mooy taxaw yii ma tudd yépp nag ñoom ay xaqiqa lañ duñu ay xalqu moo tax Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu damay faral di wax ni dañ koy taarifal ci ñaari anam anam gu njëkk gi mooy man huwa cheikh ibrahim mooy ki juddoo ci diggante woli yàlla bu mag boobu di seydi haaji abdullah radiallahu anhu ak sayida aïchatu jànqa radiallahu anha mais nag maa huwa cheikh ibrahim loolu leneen la loolu nag mooy ñeenteelu xaqiqa bi nga xam ne ñu ngi koy xam Nini nyop ñëpp nak kenn ku nekk dafa wutu sa morom yalla dafa sak ak kuutalam and ak ni mi ngi fi fess del. mu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam yonentou bi sallallahu alayhi wasallam du taxaw muk di wax ni mo yalla waye nak bepp bagage yalla mi ngi ci mom comme ni ngeen ko xamé yonentou bi sallallahu alayhi wasallam sak Cheikh Tidiane mu doon Cheikh Tidiane du wan kenn nit ñi ku dul yonentou bi sallallahu alayhi wasallam sallam kenn bopam kon kep ko xamne da ngay taxaw di woné sa bop yow ki ngay wax ni mom nga don ndono li wërut yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bam taxawé yalla rek lay jangalé bañ nañ ko sax ci ñun suñu suñu istilahat suñu mustalahat dañuy wax ni lay indi lolu moy yalla la don jangalé شاتيجان رضي الله عنه بمني شريعة لإندي فاسنا الدل جاي وخم طريقة بي شريعة لا. إذا سمعتم عني شيئا فزنوه بميزان الشرع فما وافق تأخذوه وما خالف فدعوه ولا فتركوه لولو داي تكتلني شريعة الرك بفيون انتو اندوان مم لجاتي جان اندي تي بنين انام نك مانام دفكوي غنى يوم بل comme li ma déggoon eh, xaadimul umma saydi wa mawlaaya cheikh mahamadul mahi waxoon ca tukkeem ba ci soudan ne tariqa tijaan du diine bu bees waaye mafhum bu bees la wala doxalin bu bees la cheikh tidiane bu taxawee yonentu rek lañuy jàngal cheikh ibrahima ñes radiyallahu anhu ba mu fi nekkee itamit yoon du Cheikh Tidiane dong dong dong dong lañ doon jàngal même buy tàgg yonantu bi sallallahu sax ci ahmadiyatom la koy tàggee fa chiariya awsaafu l amin wa innaha adimatu kufrin wa ahmadu yasruxu léegi nag duñ wax ni ñeent ñi ñëpp wala ñett ñi ñëpp juge nañ fi muy alxaqaayiqu salaasa duñ wax ni juge nañ fi déedéet ñi ngi fi mais nag li bay waxoon wa hal albasan xulaal hamaami mukammilan ndax bis dina ñëw ma sol cummitu sang bi cummit woowu nag faaw mu am ku ko sol ci jamono bu ne moom ngeen di dégg baay di wax ni xaqatul muhammadiya laha xalifatun fi lwujudi fi kulli asrin te dara du dox ci jamono jooju illa bi bi هذا هذا هذا هذا هذا الخليفة كن خليفة بوبو نيت نيا إلي دون دو حقو بوكوت أك نيني ديفينيري باي تي حقيقتوم دي ديفينيري شيخ تيجان تي حقيقتوم ديكو ديفينيري يونت بي صلى الله عليه وسلم تي حقيقتوم دو ني كي لب إنسانية داي نيك تي waaye nag bul fàtte eh, abul abbas al waxoon na ni law kushifa an xaqiqatil wali la ubit xaqiqatu waliyu bi waliyu amaana bi dëgg dëgg buñ huññi woon li yàlla def ci moom konoon dinañ ko jaamu ñu ne ko lu tax mu ne li anna awsaafuhu li anna awsaafahu awsaafuhu wa nuutahu nuutuhu mu ne ndax melokaanu yàlla yépp danga koy gis ci moom moo tax kooku buñ xuññi woon dëgg-dëggam dinañ ko jaam ku yeggagul foofu nag deesu la tuddee insaan shibhu insaan lañ lay tuddee espèce nit دم التجار معني الشيخ تجار رضي الله عنه بمي فيري تسترت عن دهري بزل جنابي فصرت أرى دهري وليس يراني ولا تسأل الأيام آه، عني تبين تبين رواية ما درت وأين مكاني ما عرفنا مكاني تبين رواية ولو تسأل الأيام مسني ما درت وأين مكاني ما عرفنا مكاني بمكوي فيري منكوي وحني آه، الشيخ الأكبر muhyiddin ibn arabi alxaatimi dafa ne al insaanu almaxjub laysa bi insaanin doomu aadama boo xam ne dafa xiiru du insaan te nag ku demul ba yegg ci mat boobu ba tey kiiraaya ngi ci yow mu ne kooku sibhu insaan la espèce nit la rek ndax insaan bi kiñ koy tuddee dëgg mooy insaanu kaamil kooku nag kooku nag yàlla dafay def ci moom lu mu deful ci kenn tey tamit bu taxawee du wane boppam mukk du wax ni man la mukk mukk mukk mukk ki nekk ci kanamam rek la lay joxoñ ni yonantu doon joxoñee nit ñi yàlla Cheikh Tidiane daa ko joxonee nit ñi yonantu Baye daan ko joxonee nit ñi Cheikh Tidiane moom itamit noonu lay joxoñee nit ñi Baye du woote dara ngir boppam du def dara ngir boppam du joxe dara ngir boppam waaye lépp lu muy woote daf koy woote pour dëgëral ki ko jiitu bépp melokaan bu muy melo melowoo dafay méngoog melo ki ko jiitu moom lay topp li li li li li li hadis yonent doon wax di ko misaale nit ñu bon ñi mën nañ ko jëlee ci faas bu baax bi la tattabianna sunana man kaana qablakum xazwan bi xazwin di ngeen topp sunna yi ñi leen jiitu woon mbagg ak mbagg kii donn euh, baay ci jamono noonu lay mel ndono gi nag foofu la sew-sew xaw am sew-sew yi mooy ndax ki koy doon day doon xaqiqa déedéet ñu bari nag léeg ma dégg baay point d'accord baay point baay kenn du mel ni moom kenn mënul mel ni moom xaqiqatoom kenn du ko donn waaye nag dina am ndono boo xam ne mooy nafsu bi wala boog ñu di ko tuddee <clears throat> maanaam ndono goo xam ne xalku lay doon <clears throat> ci bir lolou ngay xamé différence khalifa ak xutbu xutbaaniya ci vrai sens bi mooy xalifatu waaye xutbaaniya bi nga xamné nak mo wara nek tay ci jamono ji nga xamné dox dem nañ ba jeexal ñenti haqaiqi qutbani bi taxaw day dox ci ay witr ya maa ngi sama wax ji xam naa ne du tegu ci yoon dama yeew nii ci ay nelaw rek di wax witriya euh, yi muy tegu imma muy windeelu ci sifa wala muy windeelu ci ism waaye loolu lépp nag mën naa daje ci benn góor góor googu su taxawee wujur gi taxaw bu toogee wujur gi toog yàlla ci moom lay defee te mooy doon ki ëpp nattu nag ci kaw suuf ñu baax ñi dinañ ko topp ñu dinañ ko topp ñu baax ñi dinañ waxee ci làmmiñam ñu bon ñi dinañ waxee ci làmmiñam waaye nag moom aglabu axwaalihi mooy assukuut wassukuun li gën a noot ci xaalam mooy noppi ak dal dina wax nag su wax jotee dina wax wax joo xam ne dinay wax wax joo xam ne saa yu ko waxee rek dafay méngoog xelu ñi muy waxal xaatibu naas ala qadri uqulihim foofu lay waxee moom du wax mukk wax bu jéggi daya boo xam ne ku ko dégg jàpp gémmiñam du wax mukk wax boo xam ne dina génn shariatu wala sharia rek soo ne shariatu rek mu mu ëmb tariqa ëmb xaqiqa ndax bàyyi ay waxam du génn waxu yàlla ak waxu yonantu waxu Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane ay waxam du génn waxu yàlla ak waxu yonantu yonantu ay waxam du génn waxu yàlla kon dañoo ëmbante bu ko defee nag moom suy wax li muy wax du génn waxu baay li baay jàngale rek lay gën a jéggeel dégg te du indi yëfu boppam ndax xam na ni moom amut bay am dara ab lantinoor lay doon boo xam ne ku jot nag moo lay jox ci moom lay jaar loolu lu mat a xel la loolu lu mat a bàyyi xel la Euh, kon nag taxawaat seetlu ci jéem a corriger suñuy mafahim dinañu dimbali ñu bañ nekk ay maanaam nekk nit ñoo xam ne dañuy dund ci xadara bi wala ci pays bi dundab dof doflu te loolu moo fi ëpp tey ngeen baal ma nag ci kàddu yi dund ak dof doflu bi may wax li ma ci namm mooy man taalibe Baay laa rek point yow gëstuwoo ci xam-xam dara ngelaw lu yow yóbbaale la xamoo li wér ci waxi baay ak li wérul ci ay waxam xamoo liñ war a topp ci baay ak li baay tere woon ñu war koo baay waaye dangay préféré sax topp keneen ku la wax ni baay laa bëgg waaye nekk ci xaal boo xam ne baay def ko weddi mooy ki bëgg dëgg dëkk rek ci xaalab majzum duma tooñ kenn waaye damay wax rek réalité bi ma gis tey ci mujtama bi ñuy tuddee alfaydatu tijaniya li gën a noot ci suñu xaal euh, tey euh, fi ma toog ni mayo bi ma sol su ma ko génnee ci mbedd bi dox ku doyadi mooy ñëw ne ah kii ñu di ko déglu bokk ci nitu faydu yi xoolal lum sol léegi nag ñu ñu ñu bëgg ñoo ñu bëgg imposer ni ndekete danga war a sol ngandam dara pour nekk sëriñ danga war a am kurus bu gudd pour nekk sëriñ danga war a sol mbaxana bu rafet bu cher pour nekk sëriñ danga war a am mbooloo mu lay topp booy dox ñu yëkkati sa dara pour nekk sëriñ foofu lañ bëgg yóbbu fayda danga war a am ay nit ñoo xam ne dangay tëj seeni xel baare leen ci bépp buntu xam-xam xamal leen ni sax su ma leen joxul ndigal pour ngeen dem jàngi waru leen jàng pour ñu bañ a yeewu rek ndax buñ yeewoo bala fa tey foofu lañ toll yooyu lañ war a taxaw jéem ko dindi yenn détails yi ma gis yu bari man bari na ñu may woo ci yooyu ay diw wax na nangam mooy xalifa yàlla ay diw nangam yooyu dañ dañ ko war a dépassé xoolal tojante bopp yépp ci suñ biir tong la te pourtant ñun ñoo war a jàppante dimbalante yi safaan ci suñ biir ñu jéem a xool ci anam bi gën buñ ko saafara waaye limay may gis léegi man da ngay dem sax ba soo bëggee wax da nga ne ah xaaral ma noppi sax sama wax du sama wax man mii di wax yéen ñaata nit ñoo may wax doo taalibe baay ñaata nit ñoo may wax naan man taalibe baay la cheikhul xayri mooy sama wasila loolu nëbb ko kenn ñëpp xam nañ ko mais nag du danga koy da da nga koy toogee wala danga koy waxe mais nag dinga war nga war nga dox ci war nga dox ci yoon boo xam ne soo ci tegoo <coughs> di nga mën a dund li bàyyi doon wax man araada an yasira maa yi xaali fal yasluk tariqi fi l aqwali wal ku bëgg dox ànd ak man ci xaal bi ma ne na nga sóobu yoon wi ma sóobu di wax li may wax teyam ci di jëf li may jëf teyam ci kon nag <clears throat> wax ji mi ngi bëgg a bari maa ngi jégalu ci kàddu yi eh, di tëjee rek di wax ni cheikhul xayri nit ku baax la ci dayob mbaax nag du taxaw di wax ni maa leen gën waaye lépp mbaax mi ngi ci loxoom tey tamit loolu suñuy kilifa ñoo ko gën a xam njabootu Cheikh Ibrahim ñoo ko gën a xam euh, te ku ko jege ak koo mën a doon mbaax rek ngay nàmpee ci moom ci jàngal la yàlla jàngal la yonantu bi sallallahu alayhi wasallam jàngal la Cheikh Tidiane jàngal la Cheikh Ibrahim te mës mësuta jàngale boppam ah man de boog mësuma ko gis ci ay waxam dinaa koy fréquenté léeg-léeg musuma ko dégg ci ay waxtaanam kon nag euh, yàlla nañu yàlla dimbali Cheikh Jim Thiam ñu lay sant bu baax di la gërëm ci yitte yi nga am xam naa ni soo meloon ni man moom dara du dox soo meloon ni man ak Cheikh Katim Touré